L'eau multimédia moi l'un des émission assalafou Qur'an nous sommes l'eau multimédia l'eau multimédia 27 avenue Émile Badiane angle Paul Dakar L'eau multimédia spécialiste le informatique bureautique divers matériels réseau ak accessoires ci ay y yu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 bokk nga ci kër gi di la maison du Coran bi au Sénégal te di leen jaajëfal di leen ndokkeel bu baax ci liggéey bu am solo bii nga xam ne def nañu ko ci al musabaqatul wataniya ñu gën koo xamee ci musabaqatu Sénico la maison du Coran ñu ngi leen di bu baax ci liggéey bu am solo bii nga xamante ne ñoom def nañu ko ci concours national bu Sénégal nga xam ne fayuñu leen ñaar dërëm ñoom ñoo dem rek def ko te yàlla rek a tax ba jullit yépp fu ñu mënti nekk ci àdduna bi doon topp jotaayu alquranul karim yooyee concours yooyee ci kër gi di la maison du Coran nga xamante ne kenn fayul dara yal na yàlla buur bi subhanahu wa taala def tawfiq waaye di ndokkeel bu baax sunuy donga ak sunuy rakk yooyee nga xam ne ñoom ñoo participé woon ci concours alquranul karim googee di leen xamal ne kenn pertu ca ndax xam nañ ne première condition pour bokk ci concours bi mooy nga mokkal alquran al karim te wax nañ leen li ci mokkal alquran alkarim dañuy ndokkeel say wayjur bala nu lay ndokkeel yow mi nga xam ne yow yaa doon jàng comme ne ko imam Shaatibi waxee fa ya ayuha alqari bihi mutamassikan mujillan lahu fi kulli xaalin mubajila hani an mari aw walidaka alayhima malabisu anwaarin min attaaji walxula kon dañuy ndokkeel say wayjur balaa ñuy yegsi ci yow kon amul kenn ku ci perte bokk ci rek ndam lu rëy la wane na ne yow da ngaa mokkal wattu téere borom bi subhanahu wa taala ci sa ak dënn di ndokkeel bu baax suñu dong suñu rak bobé nga xamné moy cheikh mohammed mahi touré waye di ndokkeel bu baax wa kawlak gep barakallahu fikum fa antum tastahiquuna hada fawd wa hada al bahir barakallahu fikum jamia ni ñëw ci suñu jotay as salafu ma qur'an waye di nuyu bu baax Eh, ñi nga xam ne moom mooy Lo multimédia te ñoom ñu ñuy gunge ci jotaayu alquran al karim gi nga xam ne ñoom dañuy jaay lépp lu jëm ci jot eh, jumtukaay wane waaye jumtukaay yi ñuy jëfandikoo muy lépp lu jëm ci électronique ñoom ñu nekk fële ca Sandaga ku woote ci numéro yi nga xam ne yaa ngi jëflante ak ñooñ alquran al karim jotaay bi weesu ñu xamaloon leen ne yàlla buur bi subhanahu wa taala na mu wattoo te sàmm alquran al karim ca asamaan ñu andi ca ilaayat alquran al karim yoo xamante ne ñoom ñoo koy wane waaye ñu waxoon leen القران ساي جوغي وون اسمان دي نيو تي يالا داف اسيري ليغا داكوي اسيري ليغا خامني موم موي سيكوريتيم تي ديغنتي بي لا اله الا الله يالا دافاي اسكورتي القران الكريم diggante asamaan ak suuf ba nga xamante ne shayatin yi duñ ko laal jinne yi amut lenn loo xam dañ ko mën a changer wala modifier ko ci diggante bi ñun ñëpp xam nañ ne léeg-léeg sax alalu àdduna nga koy jëlee ci bërëb di ko toxal ci bërëb ci diggante boobee lu baree bari mën na caa soppeeku wala lu baree bari mën na caa changer waaye yàlla moom moo sécuriser boppam alquran al karim comme ni nga xam ne noonee la sécurisé woon sécurisé woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñun ñëpp jàng nañ ci li nga xamante ne moom moo di assira tey ji soo demee ci arraxiq al maxtuum xam le na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu jógee fii ci àdduna di dem euh, ca asamaan buntu ba nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam duggee euh, buntu boobe mu ngi tudd baabul xafada euh, malaayika ba nekkoon ca buntu ba di ko garde Ismail la tudd nga xam ne ci kanamam fukki junni ak ñaar ci ay malaayika taxaw ci ka malaaka bu nekk ànd ak fukki junni malaayika ak ñaar الله اكبر لب غير غار لي النبي صلى الله عليه وسلم واي غير سكري زي ليغا موي القران الكريم يلا بور سبحانه وتعالى نين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون لا اله الا الخول نيتي ماي وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون لا اله الا الله انظر هذا الجمال في قول الله سبحانه وتعالى وكلامه حسن السياق براعة الاستهلال لا إله إلا الله القرآن يا إخوائي يا فك يفري نيدون وخني القرآن ينتبه صلى الله عليه وسلم أي شياطين يوم يوم ديكوكو ديكوكو وخ واو كم خمنك أطلاسم وشعوذات وما إلى ذلك جبركتي سين جبت يوين جيس أي في جنة ñom ñu né alquran ay shayatin ñom ñokay wax yentibi sallallahu alayhi wasallam parce que tout mal nañ ko lu nek amatuñ fexé ñu né ko sa akhir waaw la ilaha illallah wal a'yazu billah yalla daal di tontu وما تنزلت به الشياطين لي دو واخو جن دي دو واخو شيطاني وما ينبغي لهم يل الصخ خنا امول ني خل ديكو اسكن لا شيطاني وما يستطيعون جن يب يجيمون جيمون اندي لو القران وما يستطيعون خول الدفي بي الدفي بي يالا دفي لا اله الا الله لونيك نيك دي نين كو جيم لو نيك دي نين كو جيم بور ناخي كو نيت ني اندي لين لو ملني القران فاتوا بعشر سور مثله لو ملني فكي سار فاتوا بسوره مثله لو تولي بن سار قل لين اجتمعت الانس والجن نيت الجن ييب سنيو داجي وون بور مانا اندي لوملني القران دون كومن ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا تيربي يلا بور سبحانه وتعالى رك مو مانا وخلو ملني الشعراء والخطباء المساقع والفصحاء كلهم قالوا واثبتوا ان هذا كلام خالق السماوات والارض yàlla buur subhanahu wa taala di nettaliwaat ci làmmeñu shayatin yi maanaam jinne yi soo xoolee ñoom dañ daan dem asamaan listiraaqi sam dañ daan dem asamaan léeg-léeg di di di déglu ji ay ay xabaar su ñu déggee ben xabaar bu wér lu war a wàcc ci kaw suuf ñu daal di ñëw jaxase kook téeméeri kàcc téeméeri fen ñu daal di ñëw di ko naxee njaberkat yi moo tax luñ la wax téeméer yu nekk benn moo cee dëgg 99 yëpp du dëgg jinne nag ba nga xamante alquran mu ngay wàcc ñoom dañoo bi ñu demee yàlla daf dañ leen sànni ay jumi sawara yàlla sànni leen ay biddéew jóge leen fi kon ñu xam ne am na lu bees wa anna lamasna as-samaa fa wajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba ñu ne ñun de dañoo dem asamaan waaye bañ demee asamaan fa wajadnaha ñu fekk ko muli'at mu fees dell dell harasan ci lan ay garde corps shadidan yu yu yu yoo xam ne du ñu sa waaw du ñu masla shadida soo yegsee ci ñoom rek ñoom ñoom ñu ngàdd la wa shuhubaan ak ay jumi sawara ay jum safar lañ leen di sànni kon lan moo war a wàcc alquran ngir lan xàllal leen yoon wi gis nga alquran lañ war a xàllal yoon balaa ngay xàllal lenn yoon xàllalal alquran wa shuhuba wa anna kunna naqudu minha maqaida lissam ne na ñun de dañ fa amoon suñuy ruq yoo xam ne fa lañ daan toog di déglu waaw di déglu waa asamaan waaye nag fa man yastami al aana yajid lahu shihaban rasada waaye lii ku fa dem na da ngay déglu ji di nga fekk ay juumi safara yoo xam ne dañ lay rëbb rasada yu lay rëbb yoo xam ne da ngay yegsi rek ñu ne la tuy waaw muy ngi mel ni ku ku ku ku koo xam ne daf la seen ba ngay yóot muy ñëw mu daal di olime rek ngay dugal bopp mu ne la tuy rasada soo yegsi ñoom ñoom ñoom ñoom ñu daal di lay xaaj wa anna la nadri xoolal ñu ngay naxante de wa anna la nadri acharrun urida bi man fi l ardi am arada bihim rabbuhum rashada xam nga fa le rasada la fi rashada waaw wa anna te nun de la nadri xamunu acharrun urida ndax Eh, lu bon mooy waajo am ci suuf am arada bihim rabbuhum rachada wala yàlla dafa bëgg gindi waa suuf parce que ñoom xamoon na ne jamono jooju gi ñoom dañoo réeraloon waa suuf yépp moo tax bi alquran wàccee ñoom ñépp a jaxle moo tax maam Seydi El Hadji di wax ci téeram ne wa anna ranna al-aynu al-xabbu yaxduruhu junuuduhu wa huwa riadidun min asadami bi alquran di wàcc comme na mu xëwe woon ca ba yent bi sallallahu alayhi wa sallam gane si àdduna jinne yépp a jaxasoo imaam Qurtubi na ko ci téeram sama sëriñ ca soo demee ca ba muy tafsir ayatal kursi aaya bu màgg boobu ku bëgg xam maa ngi lay dénk demal ci téere imam al qurtubi nga xool aqaawil yi nga xamante ne moom la ci nett li nga xam màggaayu bii lee laaya alquran al karim yàlla waxaat ca surat asaafaati wa xifdan min kulli sheytaanin maarid laa ilaha illa allah ni yàlla sàmmi alquran dafa ëpp sax daf ko escorté ba mu yegsi ci kaw suuf laa yassammauna laa yassammaun qiraatu xafs وفي روايه لا يسمعون ما دونيو ديغلو تي دونيو ديغ لا يسمعون دوتو من ديم اسمان دي ساتشي أي اي واخ دي فا ديكتلو جي الى الملئ الاعلى خبر اسمان مم جيخنا تاك باسكو القران مو وار ويقذفون من كل جانب فون تاخاو رك نيو دادي لن نيو دادي لن خاج خاج لن اي جومي سفر خان لن اي بدو يي تاك سي سين ولهم عذاب واصب الا من خطف الخطفه لي لنجيسكو تي خاو كف توتي دادي كف اب خبر بو خامني دو مات فاتبعه شهاب ثاقب تي ساسي يالا دادي ديكلاس هيتام اب اب جوم واغا خامني بلا موي جوغي فوفو جوم بي دالكو مودي كون يالا بور بي سبحانه وتعالى اذا حفظ الله عز وجل القران الكريم وهو في السماء يالا دا فسم القران تي اسمان وعند نزوله منها واي القران بموي واتي جوغي تي اسمان دي نيو يالا دافكو وبعد نزوله الى الارض واي القران يالا سمكو تي kon wax nañ leen ni yàlla sàmmee alquran ci asamaan wax nañ leen ni mu ko sàmmee ci yoon wi waaye incha allahu taala ci jotaay yi di ñëw ñu yaatal lool ni yàlla sàmmee alquran al karim ci kaw suuf parce que dañuy dégg yàlla moo sàmmal boppam moo wattul boppam alquran waaye faw ñu andi ay détails yoo xamante ne ci yan dawaay ak yan mazahira yan asbaab la yàlla buur bi subhanahu wa taala wattule boppam تيري بيغا خمانتنا مومي القرآن الكريم ما كان من صواب فمن الرحمن وما كان من خطأ فمن نقصان صلى الإله على النبي وآله ما لبى ملب أو تهلل مخرم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nous sommes l'eau multimédia. L'eau 27 avenue Émile Badian, Angle Paul Hall Dakar.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 Téléphone 33 823 81 87 ou le 77 998 0404. L'eau multimédia, l'innovation. Notre passion.